faut ñu pousse wuti leneen. Mm. donc euh, mm. voilà. Mm. alors xanaa loolu moo tax euh, ngeen nekk ci tànku taxawal bloc des libéraux et démocrates pour euh, législative yi ñu dëgmal notamment. waaw en fait bloc des libéraux et démocrates nekkagul coalition électorale. d'accord d'abord coalition idéologique la. parce que pour ñun idée wu météo bu ma waxoon ne regroupement de la famille libérale c'est loolu lañ c'est loolu lañ tënk d'abord. loolu moo tax le bloc boo xoolee. Euh, pour le moment une quarantaine de partis et mouvements libérale ak des personnalités hmm. d'obédience libérale ñoo si nekk alors mais xamuñu euh, fu ñu jëm c'est tey xamuñu fu ñu jëm mooy euh, pour le moment objectif bi mooy regrouper la famille libérale hmm. mais suba bu ñuy dem élection mais nga associé wu ak ak de des personnalités d'obédience socialiste mais pour gagner mais y pas de problème donc tey li am solo mooy bloc bi ñu teg euh, président Modou Diagne Fada ak ñu mu àndal ñoom président Omar Sarr président Babacar Babacar Gaye ak ñeneen ñu bëri ah maa ngi mm. jégalu si si ñu ma cité mm. président Pape Diop. Mm. APR. d' accord Pape Diop gis-gis. oui Pape Diop bokk gis-gis oui APR ñu ngi si. le président Idrissa Seck ñeneen ak ñeneen ñu bëri ñu ngi si. Mm-hmm. Euh, ak vraiment d' autres maa ngi jégalu si ñi nga xam ne que ñi nga xam ne tudd leen mm-hmm. mais ñoom ñëpp donc conscient que dañu war taxaw taxawal ce bloc libéral la donc loolu tey fu nekk nii mi ngi am ñoom président Balde ñoom ñëpp donc bu ñu taxawalee euh, ce bloc après maintenant danañ xool euh, bloc bi lan fa la leen mën a jëmee te bloc boobu aussi pour man dina participer un peu si visibilité. ak lisibilité du champ politique parce que foofu lañ toll. waaw bu ñu demee nag incha allah ba ba après mais ñu xool opposition bi nan la ñu war a euh, nan la ñu war a taxawee pour faire face pour faire face à ce régime là si élection législative li ñu jëm parce que lu gën a lu man lu ma jàpp mooy euh, bu fekkee yoon lañu ñu war a doxal si dëkk bi rek ak le gouvernement là am na am na am na am na am na am na am na volonté doxal yoon. mooy soit on maintient l'assemblée on fait les élections en 2025 ou bien ñu dissoudre assemblée balaa décembre def élection parce que fa lañ jëm il faut que l'assemblée toog mhm. voter la loi la loi des ñu mën a ñu mën dem ñu mën dem ñu mën a exécuter seen seen seen programme bi nga xam ne lañu wax ou bien ñu bàyyi assemblée bi def loolu yëpp mettre en place le budget parce que le budget d'une élection mettre ñu ko en place ça ça c'est vrai mhm. donc il faut que ñu bàyyi assemblée bi mu toog ba après maintenant ñu def ñu doog dans l'un ou dans l'autre élection dafay am. mais yéen élection impré ngeen di bañ. bloc bi ñun du ñu am élection impréparée parce que ay structures yu ay ay yu structurés lañu. Mm. organisé wu di tenir nos instances et derrière ça chaque quinze ñu tenir comité directeur. non bañ ñële def élection yoo xam ne waajuwuñu ko. waaw loolu laay wax moo ma ne ñun duñu bett moo ma ne ñun kenn duñu bett parce que pare nañ. pare ngeen yéen ñun moom dañuy pare. bloc le bloc aussi dina pare de sorte que bu ñu dem élection ñoom dinañ xam yan tànk la ñu taxaw bett moom parce que quand même un bloc boo xam ne c' des euh, c' est politiquement ñoo si nekk ñu taxaw et puis parti boo si gis ensuite am na structuration nationale. Mm-hmm. ensuite tey le bloc même bu demee dañu war dem dañu war a dem euh, euh, mu nekk. Mm-hmm. mu nekk mu nekk mu nekk une une. mu nekk une coalition électorale mais dinañ permettre tey une présence massive wala une présence une présence large sur tout le territoire national. donc loolu aussi day nekk avantage bu nga xam ne tey le bloc là dina ko dina ko permettre et comme ni nga waxee sànq rek c'est des leaders yu nga xam ne xam nañ lu ñu war def ils sont conscients quand que lii am na am na am na am na fu mu leen mën a yóbbu donc moo tax euh, à ce ñun amuñu si souci les se préparent et ils sont prêts pour dem pour pour dugg mais yaakaar ngeen ne ñii ñu fal 4 euh, mois au premier tour avec pour cent askan bi euh, duñ leen jox une majorité à l'Assemblée nationale. lu tax ngeen yaakaar ne mën ngeen a am dara devant ñi. démb dem euh, bu barki démb y' a quelqu'un qui dit que egg nañ 20 pour cent bon je n'irai pas jusque là. <laughs> ah oui <laughs> je n'irai pas jusque là lu wàccee noonu euh, la. te ba pare. mais xam nañ ne la tendance au Sénégal wax dëgg yàlla aussi mosuñu gis mooy ku ñu fal dañ lay jox majorité nga nga gouverner. la tendance au Sénégal aussi e que ku ñu fal dañ naan bàyyi leen ko mu liggéey mais lu ñu gis léegi. mais les gens sont de plus en plus exigeants. exigeants d' accord ba pare mais mais mais tir groupé ñu dem si régime mais mosul am si régime. yéen a tir dégguñu wax. Ah, xam nga waa ji na sax mais man ana opposition moom bañ na ba attaqué mooy attaqué opposition laajte ñi fi ñu ne. <laughs> kon ñan ñoo tiré. moom mooy tiré boppam <laughs> di di tontu boppam <laughs> donc loolu sax donc la population fu mu nekk nii globalement les gens restent sur leur faim xam nga. Euh, da nga daan toog. mais parce que tamit un pays quand même mu ñu ko changé en quatre mois. loolu xam ngeen ko yéen. xam ñu xam nañ ko. suñu mosuñu wax ne un pays dañ koy changé en quatre mois mais ñoom lu ñu wax amul temps de grâce amul état de grâce. Mm-hmm. ñu falee tey suba dëkk bi changé. ah ñu ñu jógee ñuul dem weex ñu jógee blanc dem bleu ñoom loolu la ñu waxoon mais mais euh, dans la réalité il peut pas donc loolu day susciter un peu euh, benn benn benn benn déception. ci population bi benn benn benn parce que boo xoolee. Euh, yow da ngay dugg si commune yi. dugg dans les départements mënoo identifier un responsable politique de ce parti là c'est très rare nga mën leen identifier d'accord donc du du affaire politique wala du affaire organisation moo leen fal. Mhm. mais population ci boppam nit ñi des gens lambda ki bokkuñu bokkuñu benn parti far ñu fen ñoom ñoo leen fal parce que dañu bëgg changement. Mhm. et ce changement là bu ñu toogee parce que aussi. dañ ko olof da koy wax bu cin bu naree neex bu ñoree xëñ mais fu mu nekk nii dafa affaire bi xëñul dafa xasaw d'accord moo mais les gens loolu lañ leen di fa lañ ne xaar et ça qui cause problème mm-hmm. moo tax tey il faut et puis et la population a besoin de réceptacle opposition bu fu ñu mën a fu ñu mën fu ñu mën a wékkuwaat seen seen yaakaar d'accord donc il faut que les gens rapidement s'organisent et le bloc là man pour man dina contribuer à ça tey peut-être on parle on, du bloc des libéraux et démocrates peut-être y le bloc des socialistes y le, le, le truc des communistes et cetera. Mm-hmm. Mm-hmm. de que après dinañ dinañ ñu gëm mooy ce bloc là peut peut être une alternative à ce régime là et dinañ travailler à ce que ce bloc soit une alternative parce que euh, voilà ay nit yu xam li ñuy def ñoo fa nekk. ay nit yu dëgër ñoo fa nekk donc moo tax vraiment sur ce plan là ñun non par problème ñu ngi liggéey. et fan yi incha allah euh, dinañ xam bloc bi la lay liggéey exactement. mais APR seppi na ci boppam par la voix de son administrateur Mayel Thiam. est-ce que. Euh, bon doole ji commencé gul néew te bloc bi demagul fenn Serigne Mbacké Ndiaye également toog na fi affirmer ko. ne moom ci yoo xam ne gisuñu ci seen bopp. bon bon yaakaaruñu ne aussi yëf yi naa dem fenn. après quand même ñu ngi si parce que je pense ñu ngi participer quand si euh, ñu ngi participer. waaw dem benn apériste nee na Thérèse Faye moo ko yabal. mais ça veut dire que APR déggoowuñ ci en tout cas. parce que mais mais euh, on suppose Macky Sall. non je dis pas que moom mooy moom mooy. c'est lui le patron le président de l'APR. waaye donc jusqu'à présent amagul changement le jour où il y changement ku ñu désigné xam ko mais moom moo désigné Thérèse des fois c'est Thérèse des fois ñeneen ñëw. c'est Thérèse mooy ñëw mais quand donc ñun ñun lu ñu mën jàpp ne mooy APR mi ngi mi ngi participer bon suñu mbàkkee si initiateur yi la bokkoon. Mm. d'accord c'est une vraiment aussi joué na si joué na si rôle bu solo bon peut que euh, am na beneen voie bu mu tracé boppam bon il li ko tax a découragé bokk na ci évaluer wu leen présidentiel bi li ci jot a xew waxu leen ci ngeen bëgg def. mais mais c'est mais bennoo ñi bennoo moom moom ah, génn benn. Ah, def na yoon nekkoon laa wax. mais bloc c'est pas benno moom Amadou Ba la doon jàppale mais ñun ñëpp Amadou Ba la ñu doon jàppale <laughs> moom c'est pas ñoom mais ñi nekk ci bloc bi ñooy ñi nekkoon ci benn pratiquement. d' accord d' accord mais xam nga tey. xam bu ñuy <laughs> ne peut pas la solution. xam nga en fait j'ai xam nga xam mm. nga il nga sànq wax nga ko. gis nga dans la vie nit da ngay il faut s' assumer. et jusqu'à présent aussi. bon et puis ñun ñun nous avons un parti nous avons. un yéen kay découragé ngeen parti. nous avons un mm. leader qui s' appelle Fada mm. ñun dañ gëm ne que moom mooy la solution. d'accord d'accord yéen LDR yéen LDR dañ gëm ne Modou Diagne Fada mooy la solution. keneen bu ko neexee mu gëm ne keneen mooy solution. xam nga tey mi euh, ngi koy rappelé léegi Cheikh mooy ñu nee Macky Sall tànnal mais ñoom ñoom sëñ Mbacke euh, ko ne non bàyyil ba ma dem consulter sama parti yi bëri na mais c'est des lu ñu fa jël ñu xam ne ñoo ko jël. Mhm. maintenant le bloc teg nañ ko.

mais ça nous empêche pas loolu la aussi ñu suñu leader di wax que mi ngi opposition au même titre que l'APR bu fekkee dafa am lu mu créé mais il a le droit la la il a le devoir la possibilité ñëw toog bokk si bokk si bokk si borom bi tam est-ce que du leen fragiliser